mais man nag maa ngi gërëm yàlla ne ci ah fa sant yàlla bu baax ngir ñi ko tàmbali woon ci laa bokk ne may gërëm yàlla ci bi ma mayee kartan fa tabaarakalla ba ma fekke mën a gis bis bii nga xam ne moom la ñu war a yun a gërëm Masaalikul Jinaan ne xam naa ni sëriñ bi yaakaar naa ni sa xol sedd na ne ñun taalibe daal ñoo ngi taxaw buñ ci amee dara lu ñu war a jubbanti nga wax ñu ko rek ñu taxaw ci ne maa ngi lay wax bisimilah ne ndax yow yaa ma wax ne man maa war a dalal gan ñi ne yaa ma ko wax de ne looloo tax tey Mbàkke ma di la dalal ne di bal dalal sama mbokki taalibe yëpp ne di dalal mbokki jullit yëpp ne di leen xamal ne ne la ñu ci bëggoon ne muy jumaa ju doon jumaa ju mucc ayib ne nga xam ne bu ñuy lim jumaa yi rafet yi ci àdduna bi nee ñu limaale ko Masalikul Jinaan ne sëriñ bi tay nag awma daara lu may wax ne xanaa di la gërëm ne di gërëmit ñi nga fi wuutu ne ndax ñoom ñëpp dañ maa jàppale woon encouragé ma ne ngir ma sottal ko ne dafay wax ne liggéey Masaalikul Jinaan liggéey ñëpp la ne waaye kon ñun waa communauté Mouride ne bu ñu yàlla dimbale ba nga noppalu nee dinaa la nuyu si nee wax la yeneeni xalaat yoo xam ne nee yaakaar naan dina baax ci Touba nee te dina baax ci yoon wi nee loolu boo ma ci joxee ndigal rek nee ma jublu ci loolu